auzu billahi min asheytan rajim bisimillahi rahman rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa salim salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum aux sénégalais de l'extérieur noo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen souhaiter une bonne semaine waaye itam di leen dalal ak jàmm ci seen télévision Futur Média fi ngeen nekk itam ñu ngi leen fay ñaanal jàmm ju bare te ngeen yàgg dem ak dikk ci biir réew noonee la ñuy nuyoo bu baax ak ziar suñu président directeur général muy kilifa gu baax ci ñun ndax li tax ma wax ko li xew ci semaine bi tax mu def ci jéego bu rafet rek da koy firndeel waaye nag dinañ ci ñëw ci kanam nu ngi koy nuyu bu baax di nuyu mbooleem directeur ci biir kër gi ak képp ku yàlla dogal nga xëy si ci biir kër xëy si ci biir kër itam xéewal a ngi fi ndax damay wax félicitation à Papa Cheikh Diallo et à Kia Aydara donte boolew leen ma ci ci invité yi waaye question ya ma yor pour laaj leen ko dafa bare lool ndax man mhm. yàgg naay gis Pape Cheikh di xool Kia waaye daal xool yi xaw ma woon le xool yi c'était déguisé waaye alhamdulilahi rabil alamina sëy bi yàlla na ko yàlla def sëy bu barkel adorable petit frère ay Aydara yow dama lay wax ni la kowɗo ɓe tena sekki ka ñini kayla nga nala sona nit ñi ceye mbena ñini ka ini ceyni baraji ala ka here kaw yi bu ko defee nag ñu daal di ziar sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada di leen sopp di leen ñaanal yàlla yàlla mi dara teewul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na leen defal jàmm yàggal seen taxawaay ci biir réew te nu yàgg fi ci jàmm ak teraanga di nu gunge waaye itam ñu ngi sàkku ci ñoom ñaan ndax yàgg na nag suñu borom ba lu ñu ñaan yàlla def ko kon boog ñu ngi ñaan yàlla ngeen ñaanal nu bu baax a baax a baax nu bokk lépp ñu bàyyi xel ci ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di ziar di leen màssalu ci toogaay bi waaye rek ngeen jàpp ne yàllaay dogal te lu mu dogal rek jaam dafay nangu boo nangoo nag da ngay tàllal sa loxo daal di koy ñaan mu yombalal la mbir yi ndax lépp moom moo ko yombal ñu ngee ñaan yàlla seen réinsertion yàlla na ko yàlla yombal képp koo xam ne da nga nekk ci hôpitaux clinique ak dispensaire ñu ngi lay wax massa bu baax a baax a baax ñu ngee ñaan yàlla nga gaaw wér ba dellu sa biir njaboot noonu la ñuy gërëmee accompagnant yi noonu itam la ñuy remercier képp ku nekk acteur de la santé waaye tam di wax ma ngeex mami Linguère bismillah ah, toogaay gi neex nanu tax nga ba namatuma yoonu mari Mali ah, ba pare ba pare dafa am noo dikkee tey de hmm. ah, ñu ñu ngi ci màggal ñu ngi ci màggal faaw da ngay dikk donte siise leneen la la waxoon ak ma laa xam ñu ngee ñaanal ñu ngee ñaanal boo ma boo ma nee na vert rek. Ah. ma daal di vert. waaw nga daal di def sa lépp vert damaa yeboon sama saag ba pare. xam nga macha allah mami fekk diggante daaru xuddoos ak daaru min na. wallaay jamono boo toogee nag ndeysaan nekk ci jàmm. ba mhm. tàmbir. Mhm. dafay fekk keneen a ngi ci tiis. wallaahi lu metti tege ci kawam. Mhm, képp koo xam ne dal na la ñu ngi lay massalu bu baax a baax a baax. te di la wax rek na nga muñ àddunaa ni mel. ku ne ci àdduna di nga ñam ci yi fi ne yi fi ne nag mooy yi neexalaat ak yi metti def nit am mu am mettit mhm. waaye nag na ñu tàllal loxo sunu borom ñu ngee ñaanal sunu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokk leeraayu leeraayu bàmmeelam macha allah yàlla taas ñu ci barkeem noonu lañuy tënkee nuyoo bi daal nuyu bépp xalifa général ci biir réew mi waaye nuyu itam koo xam ne gëdoo gëjoon na noo gisee daaw waaye nu ngi doon topp nag say say mbir di ko saytu di ko xool di ci am mbégte ak bànneex bu mag a mag a mag euh, kazu raja bu daaw yàlla def nga dikkoon fii waxtaan waxtaan bu am solo macha allah ba tey ñu ngi ciy jëlee njëriñ kon boo dikkaatee dañuy wax ne ñaan gu nangu la ndax bu ñuy ñaaw dañu bu ñuy ñaan danoo wax ñaaree ne yàlla na nu fekkee déwén. Mm-hmm. fekkee déwén nag boo amee dañuy santaat suñu borom waaye di rafetlu sa teewaay ci bés bu màgg gi nga xam ne ñu ngi koy màggal tey gi bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mm. mbokki téléspectateur yu télévision Futurs Médias mm. ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. nuyoo jullit jëm ci ay mbokki jullitam mm-hmm. nuyoo taalibe xaadima rasul jëm ci mm-hmm. mbokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi a Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke alxalifatul am li tariqatil muridiyya hafizahu llahu wa ayyadahu wa nasara di ñaanal bu baax rakkam ji nga xam ni moo toogee jataayu sëriñ Fallou muy sëriñ abul baraka sëñ aboo mbàkke mu sëñ fàllu ak mbooleem njabootu sëñ fàllu ki ak mbooleem njabootu islam gi mu ngi nuyu mbooleem xalif généraux yépp macha allah di nuyu borom kër gi di leen nuyu yéen tamit ci seen émission bu am solo bii di wareef ndax ku koy déglu di nga xam leen mooy sa wareef ci penc mi ñu ngi lay siyaar bu baax soxna Eva Tra jërëjëf di nuyu bu baax soxna Mami Diop jërëjëf di nuyu it sëriñ euh, Ndoye mu nga ca liggéey ba sunu xarit di nuyu bu baax a baax sëriñ Jiili Ñang di sama xarit nefi ak sëriñ Ibrahima Cissé ñu baax ñu baax waay di am mbégte lool wallaay ñu baax ñu baax macha allah di ñaanal nag sama wasiila sëriñ Amsatu mu sëriñ Chouaib yàlla na fi yàgg te ànd ak wér amiin yaa rabbi mbokki jullit yi ñuy ni ñuy seetaan ñëpp ci mm. réew mi ci bitim réew macha ngi nuyu ñëpp da leen ndokkeel ci màggal gi nu bokk muy màggalu sëriñ Fallu mm-hmm. muy kasu rajab mm. te yarante bi alayhi salaatu wasalaam rañaanoon ci indil mm. nu li gën a màgg ci di macha allah bisimila bisimila soxna li ngeen man de dama poser question ca suba waaye di féliciter encore Youssou Ndour ndax li may wax souvent dinaay wax ci sunu waxtaan ne yàlla daf nu may kilifa waaye kilifa bu mat kilifa macha allah gis nañ li am ci takk bi yëpp mm-hmm. kontaan nañ ci ñun itam kontaan nañ ci soxna Linguère bisimila dooreel na nga daan dooree xam naa ka waaw xam naa ka door na ma daan doore naan jërëjëfati cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg mm. sama maam yàlla mag leen son Mandela tëpp koy jaloore di mbooleem kilifa diine kilifa aada yi mm. di wax ne Sénégal a ngi nii réewum jàmm la ko fii xuloo di xuus booy mm. lay du ziar mbooleem xalifa généraux yi nekk si réew mi yépp ñu ngi mm-hmm. sukk ci suuf di leen ziar waaye noonu lay ñaanalee Cheikh Sidi Al mm-hmm. yàlla yàggal ko fi lool lool lool ak mboolem ak lu Mbàkke yu gépp maa ngi sukkaat ci suuf di yeesalaat sama njébbal mm-hmm. di ñaanal nag sunu maam ju baax ji fii ci yoof muy maam Abdoulahi Thiaw Laay yàlla na yàlla yàggal ko fi moom itam te dëgëral taxawaayam bu baax a baax ak mbooleem njaboot gi yépp waaye noonu lay ziyaare sama maam Kamara Jibi Anta booy yaaxa ja di ñaan yaay dégeen xeppee ci àjjanay firdawsi noonu lay ziyaare yaay Nafi ak mama Kinushka di ziar sama yaay Astu Jara mère Astou Seck mère Ndoye ak Marie Bane sama soxna soos nga xam ne waaja dem na di wuti ñaan waaye du tax nga am wujj benn yoon ak ma koo dëggal <laughs> waaye noonu lay ziyaare itam sama soppe eh? sama xarit bi ma jàkkaar lool ñu bokk benn maam itam muy sëriñ Abdoulahi Diop Bichri ki nga xamante ne moom yaakaar naa ne man lépp lu jëm ci Cheikhul Khadim daf ma yëngal waaye moom ku ne xam na fi mu ci toll ci man moo tax sax damay daw ay waxtaanam waaye nag delluwaat di waxaat cay sëriñ Fàllu parce que sëriñ Fàllu jërëjëfa sëriñ Fàllu di ñaan Cheikh Abou Mbacke yàlla na fi yàgg ak axlu njabootu Serigne Fallou mhm. gépp bismillah moo tax ma ni la sant yàlla war na jaam wallaay ndax daaw fii la ñu toogoon di waxtaan waxtaan wu neex macha allah mhm. ren itam euh, tabaarakàlla nu nu dendoo waat ak moom wallaay fas waxtaan ci kazu rajab dëgg la noonu la dey mhm. Bichri ñu ngi lay wax bisimila bismillah soxna Eva Tra euh, kazu rajab turam firi ko dafa jar di leeral bu baax nit ñi xam ko ndax bari nañu ñu koy prononcé waaye jànguñu arab pour xam la kazu rajab kazu rajab noonu la kazu rajab kazu rajab très bien kazu lim la lim la nombre la ci arab dafa am ay lu ñuy wax huruf muy les lettres alphabétiques ni ko làkk bu ne amee jàngoon nga ci 26 ca français amoon nga ci 21 ca italien amoon ci 28 ci espagnol waaw amoon ci 26 ci anglais ah. noonu tam nga amee 28 lettres ci arab vingt 28 lettres arabes yooyu nag hmm. mooy abba jadda hawaza hatta yakalama na sa enfata xarasata shaqaza jaqasha d'accord muy 28 lettres nga xam ne ci ngay jaar yépp bu ci ne am na lu muy représentation nag numérique bu mu am ndax du lettre kese kese alphabétique comme yeneen langue mais arabe dafa am beneen particularité lettre bu ne dafa am chiffre numérique bu mu àndal ni ki tey su ma nee alif 1 la ba 2 la del 4 hël kubéer tolloog 5 waaw tolloog 6 rasayin tolloog 7 su ko defee adam dellu tolloog 8 taa tànk tolloog 9 yanara di 10 soo jugee yaa ngi jëm ci dizaine keef 20 la laam 30 miim 40 nuun 50 saat 60 ayin 70 faa 80 daat 90 xaaf yaa ngi ci 100 boo jugee centaine ngay dolli siin su tooy mooy bi am ñetti tomb mooy 1000 su ko defee léegi su ma bëggoon a bind mm. awa awa bu ma neexee ma bind 15 rek ndax 15 la tombeel su ma jëlee lettre yooyu 8 bi ak 6 bi damay am ñaata 14 1 bi ko xëcc di euh, alif bi di 1 14 ak 1 di 15 su ma bindee quinze nag jàngkat yi dëgg. mën nañoo bañ a gis awa bi ma bind waaye gis chiffre 15 rek xam ne awa laa ci denc. jàngkat yi dëgg. waaw loolu nit ñi dox lasaraar xam nañu ko loolu la adat. Mhm. su ko defee nag kasu adat la ndax waxoon naa la 15 20 la. Mhm. razayin sept la mhm. vingt ak sept vingt sept la rajab nag di weer wi kon bu ñu nee kasu rajab mooy ñaar fukkil beeg juróom-ñaar ci rajab ah leer na d'accord mhm. lu ci xewoon nag rajab dafa bokk ci ashurul hurum yi juróom ñeenti weer yoo xam ne yàlla dina bëgg fonk leen lool mm. wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ci kenn xeex buñ ci tuur deret nañ leen warmaal weer yooyu nag rajab da cee bokk waaye yàlla da koo tippoo ni mooy sama weer man yàlla moo tax ñu koy rajabul fard rajab bi nga xam ne dafa ber wéet moom doogu cundum beru nee yàlla moomal ko boppam weer woowu nag yàlla moom la tànn tànn ci gën ci mbindeef yi yéege ko ci mu jóge màkkatal mukarrama ci génn guddi dem baytil maqdis ci génn guddi jóge fa yàlla invité ko ca kaw mu jàkkaarloog yàlla boromam ñuy gisante ñoom ñaar yàlla jox ko li gën a rëy ci jaamu yàlla yi muy julli loolu guddeel ñaar fukk ak juróom-ñaar la xewoon ci weeru rajab Moustapha mi gën ci mindee fi jógee màkkatal mukarrama dem baytil maqdis ca Jérusalem yàlla yéege ko jox ko julli alxuraan nettali ko nag ndax alxuraan jullit yépp a ko bokk yàlla ay wax yàlla yàlla ni subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi barak naa xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul bashir tudd naa seetlu borom bi nga xam ni rañaane na jaamam bi ci génn guddi jële ko màkkatal mukarrama yóbbu ko baytil maqdis ci génn guddi door koo yéegal jox ko la mu ko jox ci ay ngëneel guddi googu di ñaar fukkeel bi juróom ñaar ci la yanant bi ràññaan sëriñ ba wax na ni sunu yaakaar nee na ku bëgg a xam dëgg-dëgg maqaama yanant bi bul sonal sa bopp jàngal sóotu naj mi wa naj mi isa hawa maa dalla saahibukum wa maa gawa wa maa yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha alamahu sadidul quwa zo miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la suma dana fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha yàlla rañaane Moustapha alayhi salaatu ci guddi ñaar fukk julli ni ko yóbbul ko saw ci njaal bien bi ko koy jox nag juróom fukki julli la ko jox yenent bi dajeeg yenent yàlla Moussa alayhi salaam Moussa ni ko saw xeet dañoo tàyyeel boo leen joxee juróom fukki julli par 24 heures duñ ko respecté. est-ce ñu ngi ciy tey àdduna yi. tee ngaa dem ci yàlla comme yow rek la bëgg yaa tax mu sàkk ñëpp mu wàññil la ko. Moustapha dellu ak taar ba. yàlla wàññi mu delluwaat ñaan mu wàññi mu koy wàññi ba mu des juróomi julli Moussa ni ko dellul duñ ko attan Moustapha ni dinaa ko yóbbul sama xeet bu ko toppatoo yàlla toppatoo la bu ko sàggane loola dal yaa ko teg sa bopp. julli wàcc yàlla nag baaxi Serigne ndax fu ngëneel nekk rek yàlla day jël ngëneel di ko jox sëñ bi sëñ Baye Jaxate dañu ko woon yow sëriñ Tuubaa ngëneeli àdduna ak àllaaxiraa ngi fi yow mhm. ku bëgg a jiituy moroomam te mu fekk si la mhm. kuy kër këree ka wutuk mbaax it ci waaju la mooy am til la muy kër këree kay wut te wuy si wala mhm. yaa woote ngir yàlla ñun ñoo ngi ko gànt torox te yegg til ba xolam sedd te wuy si wala wootee la woote ku dul dem naar yi mujj ni hoo ba mel ni on waane kuy dem muy tëx tëx lu naan du ma gëm sëriñ bi ngir li mu xam-xam naa ko ngir gëmu la te yow ku lay weddi tey sax ak ku lay gëm a yem tànnee fi waa penku ak waa soowu topp na la boroomi daaraa la fi raamal ak ay taxanal sa diine wér na ku koy linkaar itam safu la que yàlla may ko ci ngëneel lu toll ni ngëneelu ko yàlla gi di kan sëriñ Fàllu Awa Buso nga xam ni sëñ Tuubaa luy ngëneel wuy si na kër est-ce que date boobu ma la wax mhm. muy événement bu rëy mhm. gis nga nitu yàlla yépp bari na ñu ganee àdduna ci weeru rajab weer wi waaye guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar tombik bi julli ñëw sëriñ Fallou la ko yàlla baax moom ci la ganee àdduna ganee àdduna daaru salaam ganee àdduna ci seydul ayaam sangu bis yëpp aljuma di doom ci sëriñ Touba di ñaareel bi xalifa sëriñ Touba moo tax mu daan waxal boppam sama ganee àdduna neex naa xam sama anniversaire lasu rasulaay dañuy lay rek man Fallou ma ni cëpp kon bi mu demee indi julli ci laa ñëw man sëriñ Fallou ma wax la ni juróom-benn yii may bëgg a wax. juróom-benn ba islaam jeex na nga xalaat sa xel kenn amu ko sëñ Fallou rek a ko am ci biir islam. Mhm. juróom-benn la la. dajewul ci kenn. Mhm. koo ko natt ci moom mu jëkk ci moom. du ko mën a boole. Mhm. sëriñ Fallou nag boo ko solalee mu sol ko sëkk mu mat ci moom. da naan lu mu tudd mu ne la déedéet jullit ñëpp bokk alxuraan dem xool sama tur ci alxuraan mu ngi ci. nga ni sëriñ Fallou kañ nga gane àdduna mu ne dem xool ci alxuraan wax na ñu ni Serigne Fallou ban bis nga fi ñëw mu ne jàngil alxuraan alxuraan wax na bis bi ma gane àdduna mhm. nga ni Serigne Fallou foo dëkk mu ni dellul ci alxuraan alxuraan wax na ko mhm. nga ni Serigne Fallou fanay sa dëkk bopp mu ne mhm. ci alxuraan alxuraan wax na ko nga ni Serigne Fallou ñaata at nga dund mu ni dellul ci alxuraan wax na ko yooyu laa lay firil juróom benn yooyu Serigne Fallou noo tudd mu ni yàlla noon na zalika fadlullahi yuutihi man yasa wala zul fadlil azim fàlloo ngoog ngëneelu yàlla yi yàlla ni maa ko yor di ko jox ku ma neex mhm. jagleel na ma ko mooy sama tur cee nga di sëriñ fàllu ban bis nga ñëw mu ni dellul ci alxuraan mhm. yaa ayyuhal lazina amanu iza nuudiyati salaat min yawmil jumaa mhm. fasaw ila zakri zikrillahi wa zarul bayan zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun ee eh, yéen way gëm ñi su bisu àjjuma ñëwatee dagg leen yitte yi ak commerce bi ngeen dem ca jumaa ja wuy ji yàlla ci wooteem ngeen jullil ko moo gën ci yéen su ngeen xamoon jumaa jooju de yowmal jumaa sëriñ fàllu ci la fee nga ni Serigne Fallou ban dëkk nga ganee àdduna mu ni dellul ci alxuraan sootu Yunus aaya 25. yàlla noonu na wallaahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqimin daaru a ngoog ñu ni Serigne Fallou foo dëkk mu ni demal ci sootu na di alxuraan wax na ko inna allazina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wa usnul maab tuuba laa laa dëkk ñu ni Serigne Fallou Awa Bousso kañ nga ñëw mu ni dellul ci alxuraan subhaana allazi asra bi wallahi lan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu min ayatina innahu huwa samiul bashir mooy bopp sóotul isra yi ñu ni ñaata at nga dund mu ni yaasin yaasin sóotu yaasin mooy xoolu alxuraan yaasin 82 aaya la je suis en 1886 j'ai la mare aux dinosaures j'ai rejoint le paradis en 1968 de 1886 à 1968 c'est 82 aaya mooy xolu alxuraan 82 ans laa dund sama lépp a ngi ci biir alxuraan ñan seq ko. ñan seq ko Serigne Touba Xaadim Rasul. Mhm. ki nga xam ni sëñ Ibrahima Diop almasari dani. ndeysaan fattan. Hmm? in xakamta. Hmm. annahu fardu asrihi. Hmm. fa anta isan yaa saahibi xaakimun adal. fattan xartu lam yasmax zamanun bi mislihi. walaw kasurat xiirul xulaati wa qaaluha. mu di nee na. jëmm la joo xam ne moom Serigne Touba. lu wax ji bari bari nettali bari bari soo nii cundum la ku wéet ci jamonoom kenn melut ni moom wax nga dëgg jëmb la joo xam ni yow juriste bi dàq àtte soo àttee wax ni kii yàllaa jiital kenn melut moom wax katu dëgg nga jëmm la joo xam ni fa huwal xadimu lazi mm. maa mislahu wazarun mm. sharqan wa gharban wala zo diini wa diini jëmb la joo xam ni penku ba mu jeex ak sow gis ci moroomam mënta nekk kooku mooy wéejuru sëriñ Fall mm-hmm. ak kan soxna Awa Buso soxna Awa Buso mu kan mu sëriñ Busoobe sëriñ bu soobee mu kan mu sëñ ma tabara bu su awa mbay mhm. mu kan mu hammaad mu kan mu àlliyu noonu nga koy toppe ba ci cheikh abdul qadir jilaani muy maamam nga topp ko ca musaa ma ko jur topp ko ca musaal jaw nii jaar ci abdoulaye jundoon jaar ci abdoulayeul mahdi mhm. dem ci asanul musanna dem ci asanu sibt dem ci fatumata bintu rasul yanantu bi di maam yi sëñ Fall moo tax woykat bi ni ko shérif hmm? nga mhm. bun shérifun bun shérifun tuuma jubluw la du xotti saati du tas yaakaar ko laaj ma jox la nga géejal Seex Fàllu xam ni yu la mhm. surtout yanantu bi la asanay maamam Faatimata bintu Rasulullah ak Seydina Aliyu na jur asan ak Useynu mhm. Sëriñ Fàllu sëtu ci di sëtu soxna di sëtu sëñ Buso bi di doomi soxna Awa Buso di doomi Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa di nijaayam di baayam baayam may nijaaye may nijaayam nijaayam may baayam macha allah yaayam di bàjjanam ñaar yi séq sëñ Fàllu ba baayam ay nijaayam nijaayam ay baayam. waaw yaayam di bàjjanam. dama lay ne rek ni ki ci ligne bi bisimilah. bisimilah macha allah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax bi. tabaarakallah macha allah ñu ngi leen di delloo ziar. man la Abdoulaye Amar di soppi suñu Abdoulaye sàbbal na fa ay kàddoom fu ne hmm. dañuy am fierté maanaam tekki ko foofu hmm. ndax yitteem ak yëngoom ak dalam lépp Serigne Touba te lu mu lay wax lu ne danaan ne Serigne Touba nee na sëñ hmm. bi lépp dafa doon Serigne Touba ñu ñaan fépp foo xam ne ab liggéeykat Serigne Touba dina fa egg yàlla na ko fa sunu borom eggale. amiin yaa rabbal aalamiin amiin waay amiin dañ koy safoo dañ koy tiitaroo. tabaarakàlla. ñu ci ci màggal ci ci siyaar sunu waajur yu jigéen ndax dafa bëgg suñu fàllu di soxla ni mu ambar. Mhm. moom di kenn bëgg suñu fàllu lool ak saw ak alaaji Cheikh Ndongo Amar. Mhm. jërëjëf ak bépp mboolem jullit ak bépp mboolem taalibe bi ñun daal kontaan na loolu jërëjëf yow maam Gumba Binta Amar ay sa maam ca Njaarne waaw maam Gumba Binta Amar waaw kooku maam Gumba Binta Amar ca mhm. Njaarne mhm. mooy maamam borom juróomi wàllu yi Paate Amar Ibrahima Joor Amar Ndonga Bëyti Joor Amar ak Mama Amar ak Omar Amar ca naari darmanko ya toppoon rasululaay macha allah sallallahu alayhi abu ayub al ansaari di seen maam mhm. ñu toppaat leen rasululaay mu tegtal leen Serigne Touba ñu topp ko ñoom ñii ñooy amar amar yi ñu baax a yaa nga woon maa nga woon ca soxna awa may bàjjanam mooy bàjjanam waaw lu tax ma wax loolu ah, li tax nga wax soxna awa buso mm. sëriñ buso bee ko jur mhm. sëriñ buso beeg maam jaara buso mi jur sëriñ Touba mm. ñoo bokk ñaari wéejur d'accord kon soxna awa buso mi wéejuru sëñ Fallou mm. moom ak Serigne Touba ñooy joxante sagari doomi nijaay ak doomi bàjjan sagari njaam sagari njaam waaw nga xam ni kon bàyyi soxna Awa Bousso mhm. ak yaayi Serigne Touba ñoo bokk ndey ak baay est que waaye yow doon laa doon la dul bàyyi nag nanga xam ne sa waxtaan mi nii rek lay mën a demee mhm. ndax ñi ca ligne bi dañuy bëgg a wax ak yow ñu leen di wax rek bisimilah salaamaaleykum waaleykum salaam Baye bisimilah nu ngi lay dalal ci wareef waaw ñu leen nuyu baax baax ñu ngi leen di fay soxna man. waaw wàññi sa télé tuuti ku baax ki jokkoo bi mën a neex. waaleykum ah, salaam. da ngay wàññi tuuti télé bi jokkoo bi gën a neex. waaw ah, ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. Uh-huh. waaw Diaw sëñ bi bi. waaw ñu ngi lay ziar de. ngi delloo ziar bu baax. bu baax a baax a baax a baax a baax. jërëjëf. doon jox seen wàccuwaay. jërëjëf macha allah jërëjëf dëgg yàlla ñun buñ la gisee dañuy kontaan. dëgg la dëgg la jërëjëf. parce que dañuy digg ci sëñ bi moom. dëgg la. am na solo trop trop trop trop. jërëjëf bu baax. waaw soxna Mame ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar lu bari te lay ziar ci bis bu sell bi. ñu ngi lay ziar bu wér a wér. jërëjëf. di leen ñaanal ji sàkku si yéen ñaan nag. amiin yàlla baax waaw fi ñu toll ñu ngi leen di bu baax a baax. yàlla na sëñ Fall faj aajo yëpp. incha allah amiin amiin. aywa waaw. jox ko soxna Xawa waaw mooy wéejuram. Mhm. sëñ Bousso bee ko jur. Mhm. sëñ Bousso bi mu jur soxna Awa Bousso mm. taawam mooy sëriñ Seexu Bousso mm-hmm. mu tudde ko Seexu Amar Fuutiyu Taal am alaaji Mbàkke Bousso mm-hmm. muftiw yoon wi mm-hmm. moo nekkoon professeur ñi toll ci dégg nga degré supérieur sëñ Mbàkke Bousso yi leen doon jàngal naar ba dani ko ilaa sayyidin xallaahu rabbul wara tifla wa hallaahu bil aadaabi ajma'i kuhla wa sayarahu bahran muhiitan bi kulli ma faqaarun wa badrun fi samail ola yoj yajla imaamil huda mm. bëhril ulumi lazi doy bi mm. mbàkke busal mam dooxu baynal wara kulla daa jaaxal naa di ci xam-xam Seydi Alaaji Malick moo di borom Tiwaawan mm. leen rek ma yéem ba ma xam ne sëriñ Tuubaa dëkk dëkk mooy kenn li sëñ Mbàkke Buso di taalibeem tama xam sëñ Mbàkke Buso ñu jàngandoo muftiw yoon wi sëñ Busoo bee ko jur laaj ma ak soxna Yaasin Buso mi jur sëñ xaas mbàkke ca gën gi neew mu yar sëñ abdul karim borom makaarima axlaaq ka ko yar di doom ci sëriñ afiya imaam yi mbàkke yi wéy juram moom sëriñ xaasim euh, mbàkke mooy soxna yaasin buso sëñ busoo bee ko jur sëñ busoo bee jur sëñ ma sàmba kanni buso sëñ busoo bee jur sëriñ mbàkke kanni buso mi jur soxna moomi buso soxna moomi buso sëriñ son yi bu jël ko am ci sañ fàllu son yi bu sëñ abdou samat son yi bu sëñ am sa ko sama sëriñ mu sëriñ son yi bu soxna maam xëreeg maam mareem ak maam faati macha allah sëriñ bu soobe mm. moo jur soxna awa buso mi jur sëñ fàllu awa buso mii jurit soxna mariama kan eh, soxna mariama kunta mbàkke mu jur sëñ matar silla mm. sëriñ bu soobe moo jurit soxna aminata kanni buso mi jur sëñ abdul xaadir mu sëñ touba élimaani mbàkke mbàkke yi borom 1243 vendredi la jiite ci jomaay touba tabarakallah aji màkka nuru sëñ Touba lool di kilo kilos 500 nuru baayam lool jur suñu porte parole bi sëñ Basirou Abdoul Khadir baayam boobu hmm. doom la ci soxna Aminata Kanni bu sumu sëñ bu soobe kon sëriñ bu soobee ci gàttal hmm. ñi baax ñëpp dañoo sëtoo ci moom moo tax ñu ni sëñ Fàllu Mbàkke bu soobe la ndax moo jur wéy juru sëñ Fàllu wu jigéen di soxna Awa Bousso wëlbati ko di nijaayi sëriñ Touba Xaadim Rasul mi ko jur hmm. sëriñ Touba di bàyyi ci sëriñ Fàllu di nijaay ci sëriñ Fàllu ñu bokk lépp boo demee kokki sëñ Fàllu bokk soo demee Bousso bi sëñ Fall lu bokk soo demee Mbàkke mu bokk soo demee Ndaam mu bokk tabaarakallaah mu gane àdduna fan ci Daaru Salaam këru jàmm gi ñu dëppee ko aljana sëriñ Bamba sanc ko maam Cheikh Ibrahima Fall gor ko mu gane àdduna keroog ba mu feeñee maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiin buntu yoon wi moo ni sëriñ Bamba tey am na ngëneel lu rëy doom ji sëriñ Tuubaa am tey jamono ngi ñëw ku ci sëy jiwul ci njaaloo ji doom uhuh. mag ñi ni ko Fall luy mu ni sëyi ci moom mooy dem jébbalu ci moom def ko sa sëriñ mm-hmm. xam ngeen luy njaaloo ci moom ñu ni déedéet mu ni sëriñ boo mën a am ak koo mën a yaakaar jamono dina ñëw nga tiit woo turu sëñ Fallou bàyyi sa sëriñ kon ku ci sëyi jiwul di nga ci njaaloo ji mm-hmm. bi mu waree ñëw nag mm. ci 1874 exactement cette date mm-hmm. fekk na wéy juróom wu jigéen soxna Awa Bousso ku ñuy wax sëñ Abdou Koumba ñang ca Afe ñang moo ko yoroon am ci doom ju baax ju alaaji aafe ñang mooy magi sëñ fàllu alaaji aafe ñang mook sëñ fàlloo bokk jenn yaay 1874 sëñ abdou kumbaan ñang daal di wax soxna si ni ko man de nitu yàlla laa damay gis lu ñëwagul te yàlla li ma wan biig yéeme na xam naa damay bëgg a génn àdduna soxna awa buso ni ko looy wax nii mu ni ko dëgg la ndax yàlla moo a xamal ni yow mii ma yor di sa di sa borom kër dangaa war a am doom joo xam ni doom ji bu ñëwee ci xeetu yenant bi alayhi salaatu wasalaam lay bokk te doom jooju képp ku fi jàppale adduna ak alaaxira woo turam mu faj say aajo tey ëll ëllëg macha allah doom ji nga war a am nag hmm. man mii la yor du du ma nekk baayam uh-huh. te gërëm naa sa jikko du ma la bàyyi ngir sa diine kon li ma ci war a xamee mooy bu fekkee doom ji daa war a ñëw te du la bàyyi te taxaw na teem pour ñëw kon damaa war a génn àdduna ki lay jël sama ginnaaw moo koy jur uh-huh. ca déwén sa 1875 xeexu Samba Sadio éclaté fële ca wetu kokki hmm. sëñ amari ndak sekk bu cene ba ànd ak sëñ ahmadou seexu ba ñu xeexi ko woo magi diine ñi sëñ abdou kumbaan ñang dem fa fa la ko yàlla jële soxna awa bu soo liggéeyal ko ñeenti weer ak fukki fan liggéey mat baayam sañ bu soo bi jël ko dénk ko sëriñ Tuubaa sunu yaakaar mu am ci sëriñ fàllu awa bu soo muy doom jooju segal baaraam jël ki ci liñ bi macha allah macha allah salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah ajaratu bisimila bisimila macha allah. waaw sëñ soxna si ñoom ziar bu baax a baax. ñoo ngi leen di ma mi jël ko. ah tey dañoo kontaan dañoo kontaan man la Maguette Diop dëkk Grand Médine madame Cissé. ñëpp a kontaan wax dëgg yàlla. ah ñun sëñ Fall dañoo defar mbir dañoo defal mbir. est-ce ndax ñun dañoo bokkoon ci beneen yoon tarixa mhm. yàlla dogal ñu xëy xëy rek yàlla ubbi suñu xol ci yoon Serigne Touba. est ma bëgg sëriñ Fall lool lool lool nag. Mhm. yàlla na yokk waaye. yàlla na yokk yàlla dogal man jigéenu wérul sëriñ Fall damaa defal mbir man Maguette Diop. Mhm. ma nekk jigéenu wérul di julli di ñaan pour yàlla may ma doom bu góor ba ñu mën koo duppee Mouhamadou Fadel. ma dem def échographie ñaari yoon. Mhm. ñaari yoon yëpp ñu génne ma jigéen. ma continuer di jàpp di julli di jooy di jàpp di julli di jooy damay jooy su may ñaan ba. di ñaan yàlla suñu borom mu may ma doom bu góor donte écho yi wax nañ ma euh, jigéen laa di ñaan ci Serigne Fall. Mm. jour ba ma demee di ànd ji doom barki sëriñ Fall Mbacke doom bu góor laa allahu akbar ndeysaan sama doom ñu tuddee ko Mouhamadou Fadilou Mbacke macha allah te bu ma daan ñaan damay ñaan ci sëriñ Fall yàlla ma yàlla may doom bu góor ñu duppee ko Mouhamadou Fadilou Mbacke tey sama doom jii di sëñ Fall ñii dañ may wax ana sëñ Fall ñii dañ may wax ana Mouhamad mm-hmm. Mouhamad al Fadil Mbacke Serigne Touba maa ngi dëkk Grand si suba laa bëggoon a woo sëñ Ablaye Diop Bichri si télé bi moo ko doon xool noonu ci suba. dëgg la mais damaa yéex a dugg moom mu arrêté émission bi. damaa kontaan Serigne Fall la yax yi sutante moo tax màgg màggali jiw ma. mais ñun suñu lépp Serigne Touba la ñu ne Serigne Touba ba keroog ñuy defar ba ñu jekk yóbbu ñu armeeru Touba ya ba ci Serigne Fall ñu ne Serigne Fall ba suñu lépp Serigne Fall la. maa ngi fan. daw na yaram macha allah. man li ma bëggoon laaj ci Ablaye Diop. soxna mami dañ ne. sama yaram sama yaram dafa daw te fi mu ne tey moom damaa bëgg a dëgër. wallaay dañ ne comme 1903 dafa fekk woon Cheikhul Khadim fële ca Mauritanie. ca Xoma ca Xoma ak jébbalu. waaw kon ñu war a xam ne njébbal dafay lu am solo. waaw te it euh, kon ñoom mag ñi amoon nañ gis-gis bu tool ne faaw nga joxe sa bopp ngir mën a am ci li nga bëgg. waaw loolu laa bëggoon nga leeral waaw xam nga sëñ Fallou dafa jébbal jébbaluwaat. Mm-hmm. dafa jébbalu jébbaluwaat uh-huh. beneen façon njébbalin loolu laay bëgg a leer mm-hmm. yoonu murit mënoo ñàkk njébbal mm-hmm. loolu tam occasion la pour waxaale ko nit ñi mm-hmm. yii xew ñu xewal ko te ay tappale kese ay tappale ay àgg àggalu damaa jébbalu ci xasida sàngam naa jébbalu yoon wi jébbal da cee bokk ci sàrt yi la d'accord ngay wutub sëriñ bu la mat sëriñ mu teg la ci yoon ngën laa xam yàlla nga déggal ko loolu mën ta ñàkk ci yoonu murit nga déggal ko waaw amul benn werante mu lay digal di la di la jox tur mm. di la tànnal mm. nga bàyyi lépp ak moom rafet njot ci moom loolu la sëñ Tuubaa bind mooy yoon wi lay ndeysaan sëriñ Fàllu dafa wanew yoon mm. sëñ Tuubaa dee na woolu ca Jolof sëñ Masamba Mbàkke la woo rakkam sëriñ moo roqoy bu sa jarbaat ci sëñ Tuubaa mm-hmm. sëriñ Moodu mustafaa mooy taawu sëñ Tuubaa bi njëkk a gàddu liggéey ba tey ba mu àgg fi mu àgg mm-hmm. ak sëriñ Fàllu ñoom ñeent bi nu dajee sëriñ bi ni leen dama leen a bëgg a laabire mm-hmm. wax leen yoon wi nit mën a jaar ba am ma man Uh-huh. ndax ñëpp man lañ soxla waaye niñ may ame laa leen di laabire uh-huh. sëñ Fallou neen loolu rek a nu ñoroon bëgg koo xam rek ba am ko mu ni duma bàyyu kenn uh-huh. nee na maag sëñ Modou Moustapha ñu xam suñu bopp xam ni kon ndeke duñ ci doom sëñ Touba ni duma magu kenn sëriñ Massamba ni kon duma ci rakk mu ni duma nijaayi kenn sëriñ moo roqoy bu sëñ ndeke duma ci jarbaat mu ni li fi nekk taalibe rek la iraada pas-pas volonté ci yàlla rek ku ko am ëppale ko yaa fi gañe est-ce que jël kërug jurbeelam gi moo nekkoon ci gaar bi boole ci ay njuróom boole ci ay alalam boole ci ay woy yu rafet jébbuluwaat ci sëñ Tuubaa ne ko man de sab taalibe laa woon di sa doom waaye damaa bëgg beneen façon joxaat la sama bopp jur gi ma jur laa wax neex na lool ndax sëñ Tuubaa sama wéy jur neex na waaye damaa gis lu ma ko dàqal man nekkuma doom ju bëgg a donn baayam nekkuma sëriñ bu bëgg a seex nekkuma dara nañ may dégg ci yow rek damaa bëgg nag jur gi ma jur ma jaay la ko jënde ko taalibe boo ma fayee njëg li ba mu lewu ma jëlaat naa ko delloola ko def ma kéemaan képp ñëpp di ma dégg sa biir kër ñu xam ne ci yow laa bokk nan la ko waxee dani yaa ayu asheyqu nafisul murtaja mhm. yaa fatihan maa kaana qablu murtaja mhm. biatu bunowatiya bil iraada lakum li kay osa bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xayri manni fal taqbaluha yaa malaasu karaman la ziltumoo baynal baraya alama loolu la bind sëñ Fall ni ko mm. jur gi ma jur neex na yow mi nga xam ne yaa gën a riche ci àdduna la am gañe yow mi nga xam ne buntu yaakaar yi ñëpp a ci naagu woon ni dootuñu ko am découragé nga ubbil ñu buntu yaakaar yi yow sama baay jur gi ma jur neex na jaay naa ko jëndee ko taalibi su ma jëndee nag am naa lu ma war a am la ma am joxaat naa la ko def ma xarxal aada rek xar baax mhm. sëñ Fall ku ne xam na ne xar baax la loolu la jébbaluwaate Serigne Touba jóge fi 1903. dem xomaak ca Mauritanie. tubaab bi déplacé ko. pour décourager murit yi. dootuñu am accès ci moom bu yomb. te tam naar yi duñ ko gëm lañu ñu waxoon. ñu dem naar yépp commencé joxe seen bopp. ne ko yow mii yaa doon rasulullaay. am naar bu ni ko. manil mu rabbi bi maa rabba rasulu bihi xarfan bi xarfin wa maa fil jéeli charwaaka. kan moo fi ñëwaat yar ni Moustapha doon yare ca Medine ku dut yow. yaa ko toppandoo mm. lettre par lettre bàyyi woo dara ci moom nun mm-hmm. ñi sëtu ci yanante bi d'accord nañu yaay donoom mag ñi di jébbalu sëriñ Fàllu ak sëñ Moodu Moustapha dañoo jaayante fekki seen bàyyi foofa mm-hmm. di defari mbaar boole ko koor di liggéeyal sëñ Touba mm-hmm. moom sëriñ Fàllu rek bindal na sëriñ Touba ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ci loxo jox ko bàyyam sëñ Touba bi mu àggee ci vingt-huitième kaamilam da koo bind ba àggal ñëw tàllal ko sëriñ Touba sëriñ bi téye kaamil bi niir ko ubbi reetaan ni ko fàllu mu ni mbàkke mu ni ko kaamil bii ku ko doon defar mhm. mu ni ko ñëw ko doon bind di ko barkeloo ci sa jëmm ji sëriñ Touba niiraat kaamil bi ni ko fàllu bala ngaa dem am naa sa yóbbante sëñ fàllu ni ko yóbbante kan mu ni ko yàlla sa borom moo ma yóbbante ci yow mhm. ah. sëriñ fàllu ni lu ma wax mu ni ko yàlla nee na kaamil bii nga ma bindal dafa bëgg bu ni mel nga defal ko ko moom it bu mel nii sëñ fàllu ni nee yàlla su ma soxlaa damay fay nee ko su ma nee fay ma bindal ko yàlla nee na lu mu lay fay sëñ Fallou ni ko nee yàlla na xaar ba ma àggal mu xool ba mu jaral ko mu door maa fay sëñ Touba ni ko yàlla nee na nga tàmbali soo àggalee mu xool mu tëju bind kaamil bi ba mu àgg jël jumtuwaay yépp beru moom dong defar lépp lu ci wax ba kaamil bi àgg mu ñëw jox ko sëriñ Touba ni ko wanal yàlla neel ndax kaamil bi jaral na ko baam ba niir kaamil bi ba mu yàgg mu reetaan ni ko yàlla nee na kaamil bi neex na ko lu la ciy fay sëriñ Fallou ni sëñ Touba ne ko sama kaamil bii ma ko bindal li ma ciy fay moo yow ku la bëgg ba mu jaral ko jooy muy dëgg ci moom bu mu dem mukk sawar ëllëg loolu lay fay ko ci kaamil bi ki yee gore c'est ki yee bëgg ñépp jariñu ci Serigne Touba ku la bëgg sa jëmm ji ba mu jaral ko jooy tuur rongoñ bu ëllëgee na dem na dem aljana Serigne Touba ni ko yàlla nee na dara jombul ci moom may na la ko ci kaamil boobu la ko maye. ñoo ko bëgg lool ma allah ñun ñoo bëgg lool sëriñ ko bëgg lool. Mhm. waaye dafa am lu mu defal sëñ Touba lu rëy. mu di lan xam nga lan la. Mm. ay mébéti sëñ Touba mébét. Mm. mébét dafa rëy. maanaam ngay ngay ngay wax dara. ngay projeté dara waaw waaw di ko bëgg. waaw muy sa volonté. waaw yàlla atte jotoo koo def kala ko defal. Mhm. bari na lool yu daje ci moom moo ko defal sëñ Fall sëñ Touba. Mhm. barkal sa baaraam jumaa yi sëriñ Touba ji. 1928 1900 fa laay ñëw. Mm. jumaay Serigne Touba ji. Mm. Serigne Touba joxe woon ndigal. Mm-hmm. ne yanant bi nee dañ ko fayee jumaa joo xam dañ ko xajoon ca maa yomba. Mm-hmm. dana am jumaa joo xam ni kenn du fa julli di nërmal. jumaa ju rëy lay doon. Mm. jumaa ju ni fàng lay doon. Mm-hmm. jumaa ju rafet lay doon. jumaa ju roy lépp yanant bi lay doon. te dina taxaw fii du màbb ba biir aljana. ñépp di ko gisaa banaa liyal baaqi mm. binaa an baaqiya li xayri hët min lil jinaani raaqiya yàlla dina ma tabaxal jumaa ju dul màbb jumaa ju dul ràpp mhm. jumaa ju dul sàppi jumaa joo xam ba biir àjjana lay doon saa bu xëyee laaj ma ku ko àggaleel ku ko àggaleel Serigne Fallou ñu nuy waxtaane mhm. sëñ Modou Moustapha fondement mhm. ci jamono bu jafe crise des années 30 def liggéey bu ñu waxoon ni impossible na ba jumaa ji taxaw mu matal liggéeyam hmm? ni sa rakk ju rakkam ju baax ja sëñ Fallou hmm. liggéey baa ngoog ñibbi aljana hmm. sëriñ Fallou songu jumaa ji fekk fi guerre mondiale deuxième guerre mondiale jafeñ lool sëriñ fàllu toog ni jiba muut dara dareet kollu dadd rakkal mott fàllu tuubaak njaarim dina àggale jumaa ji dellu si jiba muut hmm. poos yi dina fees dell xaalis maa ko wax man fàll dara dareet hmm. booba yére amul dañuy àbb benn yére di ko solante hmm. dinaa fexe ba ñëpp di solo bu baax tey fiis yaa ngi nii jas ne rek la so mu ne kon dara dareet jàmm ñooy yiw xeexa amoon ci àdduna bu ni jàmm ñooy fépp lay daje. ràkkal meng booba ràkk rek la ñuy lekk lekk amul. dégg nga wax bi kollu dadd dañuy lekk ba suur di naan ba man. daal ni fàllu Tuuba ak Njaaréem dana àggale jumaa ji. ne ci ne ci ba le 7 juin 1963 mu def ci 645 millions. 638 mille 558 francs. da ci def inauguré jumaa ji. sous la présence de notre ancien président poète Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. de maître Lamine Gueye le grand avocat. Mm-hmm. de Saïd Nourou Tall le grand marabout. Mm-hmm. de El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Sy. ñëpp seetaan si ko. mu daal di inauguré jumaa ji le 7 juin 1963 tabax ko ba mu jekk mu àggale mébétu sëñ Touba yëkkati sooroor bi gën a kawe génn junni ci poosam ni ko xam ko ma koy tudde ma neexal la junni. ca jamono yooyu dama bëggoon nga duggal ñu fi ci kóllëre. waaw. ndax la tax mu jël sorol ba tuddee ko maam Cheikh Fall kóllëre te jamono jooju kóllëre gi laa bëggoon nga mel ni ci ne ko kóllëre gi mooy lingeer bu ñu fàtte ngi woon ci benn ci mëbët yi mhm. waaw ci laa waaw maa ngi doon <laughs> ah, waaw kañ léegi mhm. bi mu ganee àdduna xam nga damaa bëggoon a def historique lépp mhm. daf ñuy neex daf neex bi mu ci Daaru Salaam waaw Serigne Touba dafa wax Serigne maam seex Ibrahima Fall Babul Mouridine ak maam Cheikh Issa Diène gan gi ma am dem leen ngeen siyaare ko te ñaanal maam Cheikh Issa jenn ni ko bu ma fàtte. maam Cheikh Ibra Fall ni ko bu ma fàtte. jamonoy dox ba 63 mu réaliser liggéey bi ñu jàppoon ñëpp jàppoon daa tëj. ba mu àgg mu yëkkati mu ni jo Touba ngi nii. ku fi duggati xam ne jenn la Touba jenn la di c'est unique. kon jenn la sant la naa ko maam Cheikh Issa Dieng fàttewuma ko. jenn ba ma ganee àdduna moo taxawoon ne bu ma ko fàtte. yëkkati sooroor bi gën a rëy. génn kayitu junni ni ku ko xam ko ma koy tudd ma neexal la waay nit ñëpp xalaat jullikat yi ndax bérébu jullee mu ne du ngeen lekk sama junni waay du ngeen ko lekk junni daa jafeñ <laughs> waay waay sama poos bi laan mottaat dugg waay sama baay Seex Ibra Faal keroog ba ma ganee àdduna ca Daaru Salaam tëdd ca lalu soxna Awa Buso ba sëru rabal biñ ma sànge xam naa wuññi ni meloon fàttewuma ko man fàll mhm. sama baay Seex Ibra Faal moo ne woon bu ma ko fàtte <laughs> waaye du ko fàtte mukk kuy duggati mu seere la kuy génnati Lamp Fall seere la mu ngoog na ñëpp roy ci moom ci taalibeem gu rëy kon dafa def matal kóllëre ca la ko Seex Ibra Fall waxoon fàttiw ko daal di defar kon mébétu sëñ Tuubaa boobu muy jumaa ji inauguré ko le 7 juin 1963 jël junni dawal ku ko am ko ko ma koy tudde ma neexal la ñépp mënuñu koo xam mu jël junneem sëriñ Alioune Fall Mbawoor di doomi maam Cheikh Ibra Fall di bàyyi sëñ s Fall Mbawoor mm. ni lii la sama bàyyi te junni la génne woon damay génne junni ma neexale ko wadde ko jumaa ji dama koy ngéntee aljuma ji jotati ma def ci junni ba keroog may dem ajjal commencé ko 63 ba 78 bi muy wàcc liggéey sëñ Fallou kon àbbali àggale mébét boobu léegi li gën a yéeme muy beneen mébét lu gën a yéeme jumaa ji ba tey dama ci ne mm-hmm. xam ngeen dañoo expert yi nga xam dañoo xam suuf waaw ñu ñëw xool ko wax ni jumaay Tuubaa poids bi mu war a toll suuf si du ko àttan ndax suufu Touba day centre Sénégal diggante Sine Saalum Bawol ak Kajoor dañ fee rencontré du attan poids bi ñu ko waxee sëñ Fall lu mu lu mu doon ñu ne ko neñ suuf si di ko attan mu ne waaye may leen ma ma ñëw waaxu ba agsi wàqi ba mu xóot mu jël sa dala ndoxam sotti ci tawu loxoom suuf si attanu ko waaye sama loxo attan na ko maa koy taawu man Fall ba àjjana ma jox ko borom barak bi. est-ce loolu moo ko defal Serigne Touba. macha allah nee ma ak lan. ak lan Serigne bi dafa wax ne damaa bëgg rasulullah sallallahu mooy sama lépp sëñ Bamba nee na dof na dëgg-dëgg mooy dof ñu ne ko kan mu ne ki jàpp ni rasulullaay kenn nuru na ko hmm. sëriñ Tuubaa nee na hmm. texee dina dëgg-dëgg ñàkk a dem àjjana ñu ne ko hmm. kan mu ne képp ki wutal rasulullaay nawle sëriñ Tuubaa nee na lu ma amati rasulullaay laa ko jox sëriñ Bamba nee na jaay naa nelaw jaay naa lekk jaay naa xaalis lépp weccoo ko sopp rasulullaay moom laay tagg ma tagg kudul moom at mu jot ma tagg ko weer wu jot ma tagg rasulullah doom ju ma am tudde ko moom rek laay xeeñtu mooy sama yaakaar bi sama sëriñ moom rek laay roy rasulullah moom mu bëggoon bëgg koo siyaare ji ne dañ maa gàllankoor ba déw ma mm-hmm. sama gàllankoor googu di dinaan naa yàlla mu fajal ma ko ba ma siyaare rasulullah le 7 mars 1928 sëriñ lu dem ànd ak bàyyam maam si Anta borom Daaru Salaam mm-hmm. ànd ak sëñ Ibrahima Dia ànd ak sëñ Mayoro Fall sëriñ Mandiaye Diop sëriñ Tàkko Mbàkke mhm. ñu def délégation bu takk alaaji Mbàkke Buso dem aj ji le 7 mars 1928 mu àggale mébétu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mhm. kon ajal na sëriñ Tuubaa Makka àggale mébétam mhm. muy seeti soppeem ba Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam xanaa waxoon naa léegi ci alxuraan àggale na mébétu taalibe yëpp ñun ñëpp texe la ñu bëgg bu baax moo nu ko fàggal ci kaamil boobu jox Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye ak ban neema ak ban ak ban màggal gu réy gii ñuy coow balaa ñoo dikk ci màggal gi da ngay ne bisimila ki ci liñ bi macha allah macha allah yàlla fayal nu la ndax waxtaan wi neex na lool dañu ciy jëlee njëriñ tabaarakàlla bisimila asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Eva na ngeen def nu ngi fii soxna si nu ngi lay ziyaar bu baax a baax yàlla maa ngi lay ziyaar nuyu bu baax lu bari waaw man dama judd nekk taalibe Cheikh. fekk samay waajur nekk taalibe Cheikh donc euh, ma nekk taalibe Cheikh. dëgg la ma sëy aussi ak taalibe Cheikh. Mhm. donc tarixa Cheikh rek laa xam. Mhm. est que waaye bés dafa am bés ma gént. Mhm. sëñ Fallou. Euh, avant ma koy gént daaw ma xaw ma ci moom lu bari daal wax dëgg yàlla. est dégg parce que xam nga léeg-léeg sa entourage. li lay jàngal ak ci li nga gimmi rek ngay xam. ay dëgg la. mais bés nag ma gént ko mhm. ma toog sukk ci kanamam mu téye sama loxo bind ci sama loxo ndeyjoor mhm. ma bind ci ba pare coppati ko ni ma taal naa la mhm. bi ma nee taal naa la nag sama fit ne tëf ma yeewu ci toog mu ni waa man mu suma dégg waxtaan suñ fàllu xaw ma sax ci moom lu bëri ma gént ko ndeysaan mais depuis boobu daal dafa am benn connexion bu nekk ci sama xol. sa diggante moom ci moom. allahu waaw xëy na nag aw ma chance euh, wax ma ci moom. Mhm. jàngal ma ci moom wala ma xam tax koo xam ne xëy na dina ma mën a yóbbu ci mhm. njabootam. <laughs> ndeysaan mhm. macha boobu nag affaire bi nekk ci sama xol ak xel. wallaay bon je me suis dit que au moins tey la naa ci njabootam toog ak moom. est mu gunge ma ci xabroom ma ziar ko. est-ce dañul ci sama xol daal dañul aussi ci sama xel te bëgg naa ko trop wax dëgg yàlla. ndeysaan waaw loolu daal moo tax moo woote tey. Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. loolu moom nañ la jox sama numéro ci régie bi. Mm-hmm. nga ànd ak moom dinaa ba mu ba mu yóbbu la. ànd moom yaa ngi woon ci 1947. gis nga gis nga connexion dafay am. Ah, ah. gis nga lii mooy connexion. ah c'est une grande ah, allah. waaw day maa ngi fan. yaa ngi woon ci yaa ngi woon ci li waral bés bii tey. màggalu Touba gu mag màggalu gi. ma xam nga màggal gi. Ah. gu Serigne gi nga xam ni. waaw sëñ Touba rek am boobu bis. gannaaw Rasulullah moo am bu toll. màggal gi muy màggal koo xam ni. Mhm. yàllaa ko faye mhm. ci bi mu ko tegee coono yi. mu togg coono yi ngir turu islam turu yanant bi. Mhm. bis boobu la ne sant leen ma ci yàlla li ko dalee ci ganaar ba ci gële. koo xam ne sama mbégte sa mbégte la. nag ma ci sant la yàlla. màggal googu ci njaal ku ne sa kër nga ko daan màggale. 1947 jëm 48. ci la Serigne fàll Awa Bousso ni waa damaa bëgg léegi ñu fekk ma fii. ci dëkku sëriñ Touba bii di ko fi màggale. bu ko defee ki santaane woon ndigal li. tëdd nii di nu dégg jàkkaarloog nun xam ne la mu santaane woon nu ngi ci. na ñëpp ñëw fii waaye Falloo ko woote. kon daa wooteel baayam màggalam googu gën koo tasaare. ba tey jii ñëpp daje biir Touba. loolu mooy àggale na mébétu Sëñ Touba tamit ci màggal googu. avion di yéeg a ko avion yi woote. waaye yàlla fayee ko nag la mu defal sëñ Touba. Mm. sëñ Touba fay na ko nag. tey boo xoolee dëkk bi day déserté. dëgg ñëpp a nga jëm kasu rajab. dëgg yàlla fay na ko. fayee ko tam doom yi ko waggar lool. muy sëriñ Modou bu Sajeng mii. ak alaaji Baara mii def nañ ci liggéey bu rëy. lu mu bëggoon sëñ Touba doomam yooyu bëgg nañ ko. yàlla fay ko njaboot goo xam ni ñëpp a baax. tabaaraka fayee ko muy jëmm joo xam ni ñëpp a ko nangul. dëgg fayee sëñ Fallou muy borom xol bu defaru. sëriñ fàlloo baax sëriñ fàlloo bëgg ku bokk ci sëñ Tuubaa bëgg na la te ku ko bëgg itam defaru da daan wax nii mm. waaye waaye borom barak bi rek maa ngi ci moom maa ngi ni ko nikk rek ni ko jàkk ni ko këtiiw ni ko kërëw liis ak ko ko fi ni ñukk nag man fàllu mën la fi ñël moom rek laa bëgg waay wutuma dara sëñ Tuubaa rek borom barak bi ma wax ni tam mm. guerre mondiale sëñ fàlloo nu ci dimbali mm-hmm. deuxième guerre mondiale guerre mondiale waaw ndax dafay yéeg fekk mu metti lool 45. ca la waxee ni jàmm ñooy fekk am na tubaab bu ñuy wax taleri mu sonal lool sëñ Modou Moustapha da cee jàpp convoqué nañu taxawu na yoon wi pour xeex ko. indi nañu convocation. wax na dinañ fay deux cent cinquante mille à l'époque. sonal ñu lool waaye sëñ Fallou moo tàkk ca wilaayam guré gi ak baatin bu gaaw ba. waaye taleri dootu ko talwaay. donc talatu ko woon jumaay sëñ Bamba ji day àgg talali dootu ko tal ma mee ngi lay feelu de ma mi nga ne talatu ko woon talatu ko de mhm. Albert Einstein di savant bu mag mhm. yaa ji di allemand papa ji di américain yàlla may ko ci xam-xam lool moo defar méthode bi ñu wax relativité mhm. xam lool xam-xamu lumière yi di savant boo xam moo créé la formule MC au carré ñu defar ci bombe atomique largué ko sur Hiroshima et Nagasaki en 39 45. Mhm. et la deuxième guerre mondiale a éclaté talari talatu ko ba dem jumaay sëñ Bamba ji taxaw. Mhm. gisal li Serigne Fallou. ba tey mooy ki taxawu la temporel ak le spirituel. Mhm. da koy laaj Léopold Sédar Senghor il n'était pas musulman. Senghor daa soxla réew mi soxla ndoo ay moroomam yu nekkul yu nekk ay jullit moom du jullit. waaye sëñ Fallou fekk na mu toog Touba waaye ku ma njëkk a fekk fii. wax ma dara ci sëriñ Touba wax ma ni moom lay liggéeyal ma jox ko senegal fi ma toog. Mhm. ñi xëccoo ñëpp ku ma fi tudd sëñ Touba rek moom laa jox Sénégal. ku ñëw Serigne Fallou jël xaalis jox la ba ci Lamine Gueye. ku mhm. ñëw day jël xaalis jox la enveloppe. Mhm. nga def sa poche cinquante mille à l'époque. ni jëf Mbàkke ñaanal ma Sénégal laa bëgg a jot moom laa soxla. moo xam ni kon yow sa intérêt ngay toog. waxagoo ko dara. ba Léopold Sédar Senghor ñëw mi catholique. dama ñëwee nuyu sëñ Fallou jël enveloppe cinquante mille jox ko Senghor téye ko ci teggin ya ba dal raamaat ni ko Mbàkke maa ngi jéggulu man ñëwuma bu wut si xaalis ci yow damaa bëgg a ñëw pour dolli xaalis ci yow pour ñu liggéeyal Serigne Touba borom barak mhm. sëñ Fallou di ko jàpp loxo ni ko jeex na jox naa la Sénégal xamatuma catholique ak jullit man li ma xam mooy ku bëgg sëñ Touba te bëgg nga ko jox naa la Sénégal. Mhm. cey Senghor seng ca kaw Euh, ne la ñëpp ni jàkk di la xool rek bala kenn piis bu la pixi pixal fàlloo la fal mu ne ko li ma jaaxal mooy jullit yëpp war nañ ma ginnaaw àdduna war ma ginnaaw sëriñ ci fàllu ni ko lool lool loolu gàtt na bu la àdduna bépp wanoon ginnaaw àdduna bépp te man dong ma far ak yow àdduna bépp man naa suñuy daanu foo tollu dégg seen dàng ji ndax yàlla far naag man ta far naag yow sa nga war toog ci vingt ans de pouvoir vingt ans de pouvoir de pouvoir c'est costaud waaw c'est costaud mm. grâce à Serigne mm-hmm. mooy ki dimbali Félix Houphouët-Boigny le président ivoirien en 1965. mu feebar. médecin yi xool ko ni ko kenn mënu laa teree de plus tard deux ans moo la dese. Uh-huh. waaw mu diis ko Senghor ne ko jaaxle naa loolu ci sama dund. avertir ma ci sama dee. Uh-huh. ça devient proche. Senghor ni ko xanaa sama waa ji wax ci rek mu ne ko man miinu ma sa waaj ji mu ne ko waaye man mën naa koo miin ba ko. Uh-huh. ba mu ko waxee sëñ Fallou ni ko dañu am doomu. Euh, Côte d'Ivoire boo xam ne suñu mbokk africain la yàlla dogal mu feebar médecin yëpp xool ko ni ko plus tard deux ans mu décède waaw dafa am ambition pour liggéeyal nit ku ñuul ma ne war naa la ko diis sëñ Fallou ni ko xam nga nu ñuy def da nga naan jàkk xool ma soo fi jógee dem Abidjan ni jàkk xool ko mu àggale liggéeyam toogaat na ba 93 day war a décédé Serigne Fallou moo dimbali Serigne Fanta Madi ca Kankan ca Guinée mm-hmm. wàllu kamaan la di liggéey ci turu yàlla ba tëdd ñu ni ko li nga bëgg a jot am na liggéey bu sëñ Fallou liggéey bi sa ñàkk tàbbee nga jot ci mhm. mu jël million ca booba jamono yóbbandi ko sëñ Fallou ci jumaa ji jot ci fasanteeg moom kóllëre te gisante ñu ci zaayir mhm. sëñ Fallou ni mu amee doom tudde ko ko daal di am doom muy sëñ Sërif Mbàkke Sërif Fantama di la ko tudde mhm. sëriñ Fallou dimbali Mouhamadul Bakhir ci Arabie Saoudite kon bu ñu bu ñu bu ñu xoolaatee yëf yi sëriñ yàgg naa am rapport bu sain ak président bien sûr bu ñu xoolee le saint à la martaba kun fayakun mhm. dañuy gis ne kon rapport yooyu yàgg na. ba mhm. tey amagul sax. dafa yàgg. waaw politique ak sëriñ. sëriñ ak politique a ñàkk xam nga tey dama lay yóbbu ca lislaam mhm. ba muy door. dëgg la jullit ñi dañoo sonnoon. ñu leen di fitnaal ci màkka. yanant bi alayhi salaatu wasalaam lu mu leen wax. juggi leen fii ngeen dem ci buuru Négis. mooy ci Éthiopie. waaw ngeen làqu ci moom te chrétien la woon. te ay jullit la fat dëgg la bi ñu ñëwee Jaafar mi mbokk Aliyun moo wax ak buur bi buur bi ni ko am na ñu leen fi jiitu wax nañu ni yéen du ngeen respecté doomu aadama mm. du ngeen ko sukkal fonk leen kenn te bi ngeen ñëwee wane ngeen ko da ngeen ne asalaamaaleykum rek sukkalu leen ma est-ce ñu ne ko déedéet ñun duñ sujjóotal ku dul yàlla <laughs> su jóot mooy ni ngay jullee waaw damm sa juróom ñaari cër jëm ki suuf yàlla lañ koy defar mm-hmm. nuyu nañ la ci yiiw ak jàmm fa lañ mën a yem mu ni ndax seeni yanantu Muhammad wax na dara ci al ci ci Isa ak Mariama yaay Jaafar ni waaw waaw alxuraan wax na ci ñun mm. leeral ñu Mariama ay kan Isa mu ne ko wax ci dara mm-hmm. mu jàng suuratu Mariama keef ya ayn sar zikru rahmati rabbika abduhu Zakariya is naada rabbu ni daan xafiya mm-hmm. mu ko jàngee ba ak ci waskur fii fii kitaabi Mariama isim tabasat min ahliha makkanan sharqiyya mu jàng ko baag ci wa atat bi qawmaha tahmilu qaalu ya Mariam laqad ji'ti shay'an fariyya ya ukhta Haarun ma kaana abuki imra'a sawin wa maa kaana ummuki baghiya fa asarati ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya qaala inni abdullahi ataaniyal kitaaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubaarakan ayna maa kuntu mu koy jàng ba buur bi rongo ñam toq mu génne tuuf pik bi mu yoroon mooy euh, cure-dent bi mu yor tàllal ko ni ko li nga doon jàng ak sunu bible bi différence bi nii rek la toll dugg fii ku dal ci seen kaw ma dal ci kawam ñoo bokk presque benn diine ñoo nuroo ay ay ay vision. maa mi déggal loolu. loolu buur a ko defal njabootu islam te buuru chrétien. Mhm. Serigne Bamba xaadimu rasul bi muy dimbale Blaise Diagne Blaise Diagne douanier la woon ci politique lay yëngu bëgg a jox Sénégal nekk premier député noir. Mhm. dafa rootal Serigne Touba xandi ndox Serigne bi ni ko fal naa la diiru ñaar fukki at mu toog 1914 ba 34 la décédé. Mhm. il fut le premier député noir. sëñ mu saaka bind na ko. keroog la ba gis waa ju ñaan beleesa mu naan ko yaay beleesa am iblisa mu naan ko maay beleesa ab duwaañ la dinaa la dimbali sa jaamuwaañ la beleesa rootal na Bamba xandi ànd ak ma seen gaal ga naan ba mandi may na ko fa pulim bu ànd ak encre boolee ki daa Bamba guróom du sànkar daal liggéeyal Bamba ama jëy sa moo tax mu wat carte yi a bal sa sit ñun suñu cohabitation ak chrétiens yi nii rek la war a mën a war a doon nii rek dégg naa France di ñu jël comme exemple waaw ci dëkkuwaay bu rafet. ci dëkkuwaay bu rafet diggante musulman bi ak chrétien bi. catholique bi bien sûr parce que gis nga ni ñu nekkee. parce que loolu moo war a am. damay am ay questions diine yu ñu may laaj chaque jour ci samay WhatsApp. waaw parfois ma dajale lu mat 200 questions. ma yëg ma yëgal la ne nga dikk ci question yooyu sax waa Fass ñu ngi lay wër de ndax jal ku yaa teeg ma naan bu mu la rëcc tey faaw ñu gisanteeg moom. amul benn problème waaye. waaye di ngay xool am na ñu ma ciy laaj ndax mën nañoo lekk ñamu chrétien yi. Mhm. ma ne leen waaw. par exemple. gis nga ngalax dagan na lekk leen li ngeen mënta lekk kay mooy bu ñu la joxee mbaam xuux bu lekk sa diine nangu ko bu ñu la joxee sàngara bul naan sa diine nangu ko waaye seen lekk mën nañu li cee yekkal ndax yaa ngi leen lekkal say sa sa sa ndaawali tabaski ñu ciy lekk wallaay dëgg kon yéen ko yéen a bokk dëkk te dëkkandoo dañ koy rafetal bu deelee sax mm. bu deelee sax am nga droit taxaw fa mat sawu ko la nga amul droit mooy ñaanal ko yërmande yàlla ndax mbokk leen diine ah ni ko mais condoléance mm-hmm. parce que dëkkin ngeen am. dëgg la di benn bokk benn réew. dëgg ñu yàgg fi cohabitation bi rafet. loolu moo waral kon sëñ fàll bi muy fal ki mu fal catholique la mu yëkkati ko teg ko ci kaw senegal képp mu jiite ko. Mm-hmm. xoolal Abdou Diouf. Mm. diggante ma sëñ Abdou Lahad. Mm-hmm. keroog ba mu ne ku wóotalul sa carte bii ci Abdou Diouf war nga sëñ Touba ndax sëñ Touba la ñu am te kii ngi jàpp ci liggéey sëñ Touba bi tamal sëñ Touba ma ñor. ñëpp woote sëñ Mor Mbaye Cissé génn ca Njaareem. ne xanaa doomi sëñ Tuubaa dafa wax ñu ne ko waaw sëñ Abdoulaat wax na de mu ne loolu rek a mën a waral lii ma gis ñeenti kuréeli jinnee ma romb ñëpp di jullit ku ne garde carte carte naan vive Abdou Diouf ma xam dina falu xoola sëñ Saliou Abdoulaye Wade ci kaasu café bi mu ko jox rek Abdoulaye Wade wormaal ko naan café ba mu ne ko daa mel ne yow bëgg bëgg nga café lool mu ne ko rawatina bu jóge ci borom jamono yow loo ma jox ma naan ko sëñ Saliou ni may ko kaas bi ne ko mayaale naa la kaas jox réewum Sénégal 2000 kay waaye ndeysaan macha allah. kon li ma bëgg nu xam ko mooy. Mm. le temporel et le spirituel yàgg na noo ànd. bu baax temporel bu fekkee nag temporel bu fekkee le temporel mu ngi sérieux. ah mami dégg nga de. bu fekkee le temporel mu ngi respecter ses promesses. su fekkee le temporel. mu ngi tenir un discours de vérité. saint saint. parce que y a un grand savant français. du nom de Henri Bergson. lu mu waxoon il disait que la clémence des princes. n'est souvent qu'une politique pour gagner l'affection des peuples. Mmh. Et c'est souvent ce que font nos politiciens. Ils nous tiennent un discours de vérité lorsqu'ils <laughs> que... veulent accéder au, pouvoir. au, pouvoir. Mais une fois élus, nous ils, tourne, oublient, nous tournent le dos. Ils tournent le dos et en oubliant le, euh, les populations. Mmh. C'est ça le problème qui se pose. Mais tant que su tegee ci discours de vérité man na ànd ak spirituel ñoo ko war a ma wax kon maa ngi ci sëñ ma wax ni kon loolu mébét ya lu mu defal Serigne Touba Xaadimu Rasul waaye mu defoon jëmm joo xam ni wilaayaam foo ko natt weesu na ko daa jubóog yàlla. juboo yeeg yàlla lu mu bëgg ci saa si mu nekk ci saa dama ci indi firnde. sëñ Mahmoud ñan mu ngi fi di dund. waaw doomu alaaji Afe Ñang la. alaaji Afe Ñang mooy magi sëñ Fall. yaa ngi koy tudd sànq ci waxtaan. mooy magi sëñ Fall ñoo bokk benn wéjur wu jigéen. Mhm. daa ami tool ca bay laa. Mhm. bay ko mu dem ñaari weer pepp ndox mënu faa laal. mu jaaxle ci lool woolu doom ji sëñ Mahmoud ñang mu ñëw mu ne ko ñëwal ma jox la sama hëddiya nga dem joxal ma ko sama rak mhm. ndax xam naa ni mu jubóog yàlla te soxla naa ndox ndax lii may bay ci laa yaakaar addiya ju leew mhm. kaay kon nga demal ma ci moom soo demee mu ñaanal ma yàlla mhm. ndax kat tool yi manqué na ndox sëñ Mahmoud ñang jóge ci bay laa dem wuy ji sëñ fàllu ca nindi ba mu ñëwee mu jël addiyaam jox ko ni ko sama baay moo ma yónni nee na at yi ji moo la ko jox yéen bokk wenn weejuru jigéen waaye daa xam sa juboo ak yàlla te tool yi ñaari weer a ndox mun fee laal est mu bëgg nga ñaanal ko yàlla ndax mu am ndox mm. sëñ Fallou ni waaye at ji daa bari sax di tekk ne ko boo demee ne ko ni mu ko bëggee léegi rek sëñ Mahmoud Ñang tàggoo ak sëñ Fallou ci nindi war a dellu ci baayam laa wax ko ko comme Touba ak baylaa benn mu ñëw ba Touba guddi jot ko mu ni comme guddi na naa jaar sama kër wii juru jigéen fanaan fi su ëllëgee ma door a dem nag ca bay laa wax ko sama baay ni ma sëñ Fallu wax fanaan ci kër wee juram bu jigéen xëy suba dugg ci toolu bay laa yi waxtu 9h bi ñuy bëgg a nuyu baayam mi ko yónni woon ndox mi ni bàcc ci suuf commencé taw di taw yendoo ko di taw ba jëm ngoon alaaji afa ñang ni lii mu may bëgg a jaaxal kaay takk fas yi ma dem sant sama rakk ji dëgg-dëgg kii jubóog yàlla mhm. ndax lii gaaw na te ñaari weer ngi ndox amu fi woon mu takkal ko fas wi ba mu ñëwee ba nuyu sëñ Fallou ni ko waaw góor maa lay sant bu baax Mbàkke taw ba de dama koo yendoo sëñ Fallou ni ko kakañ la ko door mu ne ko tey ki suba bi 9h di jot sëñ Fallou ni ko xanaa kon sa doom ji nga yónni woon ñëwul fanaan si ci yow mu ne ko déedéet dafa jaar kër yaayam tey ki suba lay door a ñëw sëñ Fallou ni ko looloo tax mu door ko tey 9h waaye bu ñëwoon ci guddi ci guddi gi la koy door ndax ci guddi gi laa joxoon ndigal taw ni ko àndal ak moom dem ci sama mag ju baax damaa jox ndigal taw ni ko àndal ak sa doom ji sama doom ji dem wuy ji baayam kon su ñëwoon ci guddi taw bi door guddi ah. lim fanaan ci kër yaayam moo tax taw bi doo tey ndax moom laa boole woon ak taw bi pour mu wuy si la kookoy sëñ Fallou jubóom ak yàlla dafay jiite julli kaalaam rot sëñ Abdoulahat mi ñépp xam jël kaala gi defaral ko mu ne ko lii nga def loo ci jublu sëñ Abdoulahat ni ko gëm sëriñ Touba rek te ngay sëriñ Touba ci nun sa kaala gi bu ma defar mu ne ko li ma yor muy xilaafa gi bu jóge waatee fii foofu rek moo wutu sëñ Fall 68. sëriñ Fall Awa Bousso dafa uuf njaboot gépp bëgg leen déggal magam loolu sëñ Modou Moustapha xam nga lu mu ko daan wax. lu mu ko daan sama mag baax ja rek loolay sama mag ju baax ja taw bi mu yoroon di ko def mu ko jëlee ci déggal magam am solo nga. sëriñ Touba moo leen waxoon yéen ñaar sëñ Modou Moustapha sëñ Fall mm. na ngeen toog Touba bu leen ma fekk njaareem mm-hmm. lu dul ma woolu leen. ñu toog di wéye ndigal tool yi dem ba am ñaari weer ndox amu fa askan wi dajaloo seeti sëñ Moodu Moustapha ne ko ah ndox lañu soxla de ndax ci la ñu wutee addi juñ jox sa baay te jaaxle nañu ci sëñ Moodu Moustapha ni leen man kat sama kilifa damaa loo Touba sañu maa dem fekk ko te woowuma waaye dinaa ci xalaat ba ñu demee mu woo sëñ Fàllu mu ñëw mu ni ko kaay demal ma directement ca njaareem uhuh. soo demee ca njaareem neel sëriñ Touba jaam ñi soxla lañu taw te man lañ koy wax te man moom rek laa am te moo waxoon nan fi toog sëñ Fallou ni ko waa dina neex a lijjanti ndax bu nu demee day mel ni dañoo wàcc ndigal waaye yow da ngay toog man ma dem su ne ma lu tax nga ñëw ma ne ko sab taalibe nga toog di dégg ndigal waaye sab taalibe daa jox ndigal taalibe man sa taalibe la est-ce que bi mu ñëwee wax ko Serigne Touba waaw bi ni ko loolu ngeen wax neex na ma loolu ni ngeen ànde waaw duggal fee ci kees gi ah. ma boole laa ki yor taw ah. ngir bu ëllëgee ku ko soxla ñëw ci yow mu gën a gaaw uh-huh. lii déggal magam digganteem ak sëriñ Soyibu sëriñ boo jullee sañ Fàll 68 digganteem ak sañ Abdul Xaadir da koo bëggoon ñu bokk nday jeex tàkk ci moom waxoon ko wax yu biire yu ñu mënta wax ci télé digganteem ak sëriñ Saaliwu sëñ Fàlloo ni sëñ Saaliwu am kuuf la kuuf mooy koo xam ne làmbi suñu boroom bu tëggee ku ne di kañu day def dégg te lu làmb ji guddee guddee mooy ub làmb ji moo fi mujjee ci doom doomi sëñ Tuubaa digganteem ak sëñ Ibrahima Mbàkke moo waxoon Senghor bala ngaa dem jaaral Mbàkke Baari sama rakk ñuy wax sëñ Ibrahima ku jubóog yàlla la mu ñaanal la mhm. Senghor ñëw sëñ Ibrahima jox ko foto yi ni ko toog ci mu ne ko dama lay wormaal du ma toog ak ci kaw sëñ Ibrahima ni ko am nga ci ndigal ngir sama mag ji yónni ci man toog ci kaw mhm. mu toog mu ni ko bi nga toogee ci kaw yàlla teg na la ci kaw photo yu Sénégal di nga ci toog mhm. waaye nag man dooma yilif du ma fekke sax président 55 la sëñ Ibrahima génn àdduna diggante sëñ Abdoulaye borom dër bi bi mu sëriñ Cheikh Daaru Rahman mi xalifaam tey mhm. booba 12 ans rek ci lay war a toll waaye sëñ Fàllu moo ko jël teg ko ci kaw fauteuil bi uufal ko boppam ni ko yaakaaroon sëñ Abdoulaye borom dër bi ñëwal ci doomam ji def naa lépp ci moom ñaar la léegi nañu ñëw ci moom mhm. kon ku rafetaloon la àndinam ak doomi sëriñ Touba yépp ak ñëpp ak ñëpp nag ñooñu islam macha allah jubóo gi yàlla boroomam wallaay Sénégal nag ñëpp gëm ko mhm. defoon ku bëri yërmande defoon ko saf xorom maa ngi koy nettali dafa safoon xol. daa am xale bu man a xool di ko xool rek bañ a xef. waaw sëñ Fallou ni waay waay kii kii kii ku doon. ñu ni ko kii xale bi ñàkkul rab la dëkk. Mhm. mu ne kon mooy rab boobaay. ndax xool yi bari mës nañ koo jox bouteille limonade waaw ñun bëgguñu la bàyyi te waxtu bi jot na maa ngi toog rek di la seetaan bouteille limonade waaw mu ne lii lu mu doon ñu ne ko mooy limonade mu ni luy limonade ñu ne ko boisson la bu ñuy defaree ca Ndakaaru oh. mu ni waaye biñ koy tëj kenn fekkew ko ñu ni déedéet mu ne kon tuddul limonade limanaan la tudd xamoo loo naan <laughs> dëgg la waaw nit la ko mënoon a jàngale bëgg sëriñ Tuubaa yee ñëpp nag ci sëñ bi na ñëpp gëm sëriñ bi tamit ko wutal nawle mm-hmm. ndax nee na tuur rongoñ ngir sopp sëñ Tuubaa moo farata yi ñoo yem ci yàlla tuur rongoñ ngir sopp sëñ Tuubaa saf ku du moo waxe li hubbil xadimi fardan mm. arahu la moom la ñuy fàttaliku tey dëgg la mu dëppook ñaar fukk juróom-ñaar ci rajab mm. yàlla defal ko xusuusiye moom rek a ci ganee adduna mm. mu faj aajo yi yëpp mm. wax naa ni njaago sax yenn saay ma romb ko mu ni Abdoulaye Diop koroom ma ni mu ma uleef ma ni wuyees ah. mu ni ma sëñ Fàllu Mbàkke acci na loole mm-hmm. njaago yi sax nañ maamul morom kon ñëpp a ko nangul chrétien yaa ngi waat ci moom wallaay boo bu bu fekkoon liñ ubbi nañ ko da nga dégg tey tous les pays du monde ne dina fa wootee mm-hmm. sant sëñ Fàllu fi mu jaar bu baax bu baax nit diine yi nitu aada yi ku ne ak fa mu jaar ak yow yàlla na ko yàlla fayal amiin yàlla yàggal suñu abool mi toog toogaayam ndeysaan ak i leen dool leen tawfiix amiin yaa siyaare jullit yépp nag incha allah di baalu ñëpp ak jërëjëf di la sant bu baax nag soxna Eva Tra jërëjëf Diop ci seen émission bu rafet bii di waree jërëjëf di sant soxna Mami Diop wax na dëgg sama mbokka ñoo bokk kokki Pape Samba Thiam ak ma naan kenn doyalul régi daal régi ngi toj ne nañ ma kenn doyalul te tey li ci li mm-hmm. ci gën a yéeme li ci a mami mm-hmm. gone yeeg ca régi ba ña tekk man dama foogoon sax dañu génn régi waaye ñëpp a ngi ne tekk ndekete li incha allah ya boo déggee farata waaw faaw nga ne dégg déglu ko ne wayal dëgg la xam nga dañ naan wayal ci sow la gën waaye ci nit la gën nga ni Baye Fall lu mu doon wax danaan euh, naka tegg ak am na noo koy waxee 1933 bi mu inauguré Taïf waaw rek laa la laa bëggoon a laaj ndax gone yi xam ne euh, gone day topp magam ndaxte loolu yëpp ci kóllëre gi la bokkoon ndax xam naan Taïf dëkk la bu Sëriñ Modou Moustapha fonkoon mm. waaye comme waxtu wi dafa jeex mm. non Sëriñ Fallu daf ñoo jàngal dawal Sëriñ Ablaye yaxsha nawaiba dëhri i luz bil xalifatil Moustapha bi Taïf mm. loolu 1933 bi mu koy euh, bi mu koy inauguré mhm. Taïf sëñ Modou Moustapha ci boppam mhm. moo ñëw ni ko yaay tudd sama dëkk mhm. xoola bi ànd ko rafet mooy magi sëñ Fallou yaa nuy tuddal dëkk bi sëñ Fallou ni yow mi ragal soppiteg jamono musiba yi am ak épidémie yi dénk naa la ñëwal Taïf mbóota ngi fi boo fi ñëwee sa lépp faj da ngay xool sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bi mu ganee àdduna 1912 sëñ Modou Moustapha mii magi sëñ Fallou moo ko jur muy taawam sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaw waaye dañu sëñ Fallou sama doom ji du ma ko tudd yaa ko sa doom loolu la jox cër bi lépp sëñ fàlloo ko gàddu dem ba ci sëñ Touba mu ne sama doomam waaye tuddal ma ko sëñ Touba tuddi ko sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke def ko turando rafet na mooy sëñ Cheikh Gaynde Fatma njàngale yooyu ngay wax mami Linguère loolu ngay bëgg a fàttali la jeunesse dafay am solo ci ci am réew dëgg la waaye sëriñ daf ñoo jàngaloon nu ñuy dawalee te ma gis tey chauffeur yi moom waaw dajji dajji kërën kërën ah, yaa ngi may soog a tontu de jàngal eh, code de la route sëñ Fallou waaw waaw dañuy nikk jàkk eh. tàcc tàcc pekk ci tekk yang yollu ma ni nikk nikk mooy jàpp ci volant bi. ñu ngi lay dégg lu bu baax. jàkk di xool sa kanam. Mhm. bu nee pekk bu nee tekk tàcc maanaam mooy bu amee embouteillage bu son. Mhm. nga ni tekk mu ni tàcc tekk. Mhm. yang yollu bu yaatoo ba nga amaat yoon nee na dawal. nee na nag loo gis sa kanam jàppe ko dof te jàppe sa bopp nit. ni dof nag nit a koy moyu. xoolal intellectualité boobu xoolal xoolal niveau boobu ak auteur boobu ak xam xam mbir. xam mbir dafa mën a tontu xam nga yàlla dafa may ci tontu. waaw waaw dafa mën a tontu dama cee ñett kii dañ tëj. waaw te tëj bi sax a nu waaye faaw la ñu tëj <laughs> daa am ku ñëw di ko laaj wàllu tux. Mhm. xam nga tux tey dañuy wax ne amul benn texte bu indi wàllu tarxiin tux fi ko mhm. tere. Mhm. mu ñëw ni sëñ Fall loo wax loolu laa doy loo. ndax gisuma benn texte bu ko tere. tux ndax araam na. sëñ Fallou ni taalal mu ne ko lu may taal mu ne ko ni ngay tuxe laa a xam mhm. mu tuxal ma xool muy tux rek mhm. sëñ Fallou ni ko dee bul bàyyi tuxal mu tuxa tux ba mu yàgg xam na ni bu bàyyul mu lakk ko mu sànni mu ngi may lakk di sëñ Fallou ni ko yaa ko wax loo xam soo ko bàyyul mu lakk la mhm. araam na gis nga ni mu ko àttee ki ci des dafa ñëw ni ko damay laaj tiim ak jul ak jàpp bu ci gën tiim ak jàpp ñaar la di werante kii ni tiim a gën kii ni jàpp ah. mu àtte leen ci lu yomb daa génn kayitu junni teg ko ci benn ngise ne kana ni tiim a gën waa ji ne ko man mm. mu ne ko tiim ko tiimal tiimal xaalis bi rek te dem mu tiim ko dem mu ne yow mi ne jàpp gën jàppal jël mu jàpp mu ne di ngeen xam bi gën <laughs> macha allah te mën a jàngale macha allah waaw sëñ Fallou ci ci ci waxam bu nekk rek mën na ci résumé àdduna mm. am ku ñëw ni ko Mbàkke yow rek laa sopp mm. Fallou ni ko xam naa ko mu ne ko dama laa sopp ba lu ma ci góob gar ko dama laa sopp ba lu ma góob gar ko lu ma ci fekk ma jël waaw mooy lu ma ci góob gar ko rek dañuy góob ca tool ya gar door a mën a jëfandikoo du ak mbéb mm. mu ni ko dama laa sopp lu ma ci góob gar ko ah. sëñ ko dangaa juum ku ma góob du gar fu mu tolluy laax waaw lu mu la wax rek jàngal Jóob ñun de xam nga tey dosé nga njaayeen yi wan nga leen ne daal mbir yi baax yi ci njóobeen yi rek la xëy kii kii moom mënta am ci njaayeen ci njóobeen yi rek la mën a am nu ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal xanaa di sant nag bu baax wéral sa baat sant bu baax sama mag yi bopp dëgg la soxna Faama Jaw est que ak euh, soxna Ndeye Yacine Diop soxna Awa Diop maa leen siyaar bu baax sunu soppe yooyu waaw di leen siyaar bu baax euh, ñoom laa dese ci yaay kat yoratuma yaay di leen siyaar bu baax di nuyu mbokk yëpp mhm. euh, di baalu ñëpp ak di mhm. siyaare sëriñ si nag tey ji di ndokkeel ñëpp mhm. man su ma limee juum ñëpp sama xarit lañu waaye di sant nag alaaji Mbàkke yu fay nga xam ne ci benn télévision ci laa nekk di ci liggéey muy nit ku baax di mm-hmm. représentant xalifa bi fii ci Dakar bu siyaar sëñ Cheikh Balla sam bu baax moom it mm-hmm. di siyaare nag mbooleem soppe yi ndax Eva Tra man nelawatuma man sama téléphone sonal na ma waaw man chaque jour naa jot euh, lu gàtt gàtt 200 appel jëm kaw. wallaay ndeysaan euh, message ngir jëmmi sëriñ bi di la ñaanal. ma ma euh, di bég di jooy loolu lépp nag. du man sëñ Tuubaa ngeen bëgg mhm. kon nag ñooñu fu ma toogee ci télé war naa leen a sant maa ngi sant ñëpp di leen béggee man bu baax a baax a baax di sant mbokk yëpp mm. ak dëkk yi nga xam yëpp dinaa ciy dem ba bu ma kenn muy Amérique muy Mali mm. muy fu mu mën a doon rek muy mm-hmm. Côte sant naa ñëpp ndax su ma limee jum ñëpp sama soppeel rafet na loolu ndax xam nañu nag mbooleem ah. kilifa diine yëpp ndax mm-hmm. sëñ Fall defoon na ci relation bu am solo ñu waat ko Fall mm-hmm. dëgg la sëriñ euh, euh, Insa Ruuhu laa moom mm. Seydina Limaamu Laay bu wàccee 49 moo jur sëñ Ablaye Thiaw Laay mi bàyyam bi mu wàccee liggéey 49 ñu ngi jëm ci seen bés bi bu soobee yàlla ndeysaan ci appel bi Serigne Fallou dafa woo sëñ Moussa Ka ni ko woyal ma sama mbokk ma mhm. yebal délégation bu takk nu jaale si ko mhm. sëñ Moussa Ka jël loolu la defoon ak ñoom macha allah digganteem ak sëñ Cheikh Tidiane mi fi jóge bu yàggu yàlla yàlla doon leer nee na mhm. ba nga ko wooloo mooy jamono ya mu amee différence ak Senghor en 61 ginnaaw bi mu nekkee ambassadeur bu Sénégal biir Égypte mhm. ba Senghor mel ni ku ko téye woon sëñ Fallou dañu ko na génn sama dooma mhm. ba mu génnee sëñ Fallou dafa woolu sëñ Cheikh ba mu ñëw mm. mu ne ko nag li nga wuuteeg sa bàyyi sëñ Ababacar moom bala moo dugg ci dara dana diisoo ñun ngir xam na li lu bokk mhm. yow nag damay xëy dégg la ci ñun tax nga def loolu <laughs> sëñ Cheikh nee na mani ko soo gisee ma ñi may dugg ci mbir sama tàgg ko damaa am baay bu mag ci yàlla bu toll moo tax ma ñi may dugg ci neex na ba dee ndeysaan Alaaji Ibrahima Niass ngeen kon moom ñëpp la am lante woon muy canaba muy waa kër alaaji Omar Fuuti Taal muy waa kër Seydina Limaamu Laay muy waa kër Seydi alaaji Maalik muy waa kër sëñ Bukunta ca Njaasaan muy waa kër Seex Saab ñëpp la sëñ Fallu am lante woon kon ki ñu fàttali dañu xam ni wanaat nañu ni Sénégal bennoo moonu jig nekk benn waxante lu rafet yéene réew mi jàmm rek la ñu xam bàyyi yàqante bi ñu xewal ci télé yi xamuñu leen bàyyi xeexante bi bàyyi xasante bi mm-hmm. bàyyi xëccoo bi mm-hmm. ndax koo toj boppam yaay demat seeti ko hôpital réew mi lu ñaaw xaju fi na ñëpp nekk benn. nga ni naka layoo di tefeso xanaa moom ngay taa di ta oui lii ay ca Linguère waxtu bi na nañu waaye xam naa ne li la gën a lool mooy toog di di déglu Diop. lépp tey kay fi mu ne damaa damaa meroon ndax bi fekkul Touba waaye. bëggaat naa gis naa gis naa loolu. moom maa ngi moom dañuy kii dañuy sànnante ay kii waaye sama jàkkaarloog moom moom daf may yóbbu feneen. dëgg la xanaa kon dañuy delluwaat fa ñu ubbee woon rek la ñuy delluwaat. Mm. kay Serigne Fallou as jërëjëf Serigne Fallou. macha allah ndax man damay wax ne damay dégg gone yi naan su ma jaaxlee def juróom-ñaari sëriñ fàllu may wax ne juróom-ñaari sëriñ fàllu ëpp na ci yitte boo ko weddee laaj ma ko démb ca ngoon am na fu ma tolloon fu xat benn sëriñ fàllu laa woo lépp faju maa ngi lay ziyaaraat lu baree bari tey ñaan sëriñ fàllu yàlla def ko mag ak mbooleem ko am sëriñ fàllu nekk ndax moom kat nee na ku ko tuddem fàllu ku nekk bu ko dogalul mbootoot fàggul na ko aljana waaw loolu nag mhm. yaa lay leeral mhm. moom lay tëjee mhm. yow yow yow yow doo tëjee ne ndax loo wax ñu jëlee ci njëriñ macha allah aywa waaw ndax lu yéeme la uh-huh. kiim ko waxoon uh-huh. du murit sax kiim ko waxoon ah. du woon murit mm. dafay góor gu baax mu am ngénte muy taawam mm-hmm. mu bëgg koo tudd mm. te xam nga ajoor ajoor du bëtal taawam mm-hmm. da koy ngénte ndax dañ koy wàññi maanaam bu ngénte jotee da koy def rek du ko tëbal ko fekke mm-hmm. bi ko yàlla nattoo nag mu am doom mm. soxla lu mu ko ngéntee boobu 62 la. Mm. réew mi dërëm amu fi. waa mu jaaxle ci lool te mbokk yaa ngi ñëw day sàmm. waaw mu woo ñaari xaritam di waxtaan ak ñoom ci mbiru ngénte bi. Mm-hmm. léegi nag booba murit dañ ko comprendre woon boo nee murit laa sax lay xeeb. Hmm? mu daal di woo xarit bi ne ko ah man de sëñ Fallou laa bëgg a seeti ngir sama ngénte li dégg naa ko tabe la kenn ki ne ko sëñ Fallou man mooy sëriñu Touba bi mu ne ko waaw mu ne kooku daa am lu mu ci des daal ni eh, sëñ bi li nga wax ñaaw na di sëñ Fallou nitu yàlla la ni ko demal nga seeti ko yàlla baax na góor gi ci boppam ni dinaa dem seeti sëñ Fall bi mu ñëwee mu ngi ko fekk sëñ Fall toog ci garabu njigis gi mu nuyu sañ Fall sëñ Fall ni ko lu doon yitte yi mu ne ko am taaw muy góor ma bëgg koo ngénte réew mi jafeñ ma xam ne rekk rek la tax a toog ma ne naa la seet si uh-huh. sañ Fall ni ko léegi rek toogal lu njëkk ñëw ñu bokk ko mu toog as biir oto gaare jox ko keesu xaalis oto gaare waat jox ko keesu xaalis oto gaare waat jox ko keesu xaalis bi ñetti kees sëñ Fallou berndeel ko ba ngoon mu ne ana borom ngénte li mu ne ko maa ngi mu ne ko neel diis ba nii ñu waxtaan mu ñëw sëñ Fallou ni ko wàññal genn kees gi wàññi ba mu yàgg mu ne ko mbàkke su juumul ñetti million moo ci nekk sëñ Fallou ni ko xanaa mën naa defar laax ak ceeb ngir sa yi ñëw ca booba jamono 62 mu ne ko ñetti million ëpp di mbàkke mu ne ko waaw yaa ma yaakaar tamit du ma tas yaakaaru kenn ko ma yaakaar may Fallou jëlal mu commencé jooy ni ko mbàkke amoo nawle ndekete di bëgg a jub sëñ Fallou ni ko des ta jox ma geneen kees gi mu jël wàññi góor gi ni ko un million cinq cent mill moo ci nekk sëñ Fallou ni ko xanaa mën naa xottil mbootu xale bi mu ni li ëpp na di mbàkke yaa ngi may bëgg a rusloo di commencé jooy sëñ Fallou ni ko des ta jox ma geneen kees mhm. mu jël fekk ci cinq cent mille sëñ Fallou ni ko soo ñibbee sa xarit bi tudd Matar sant Gajaga naan la awma lu ma lekk na ci solo yére ñëw sa ngénte maay borom Touba Ndiadem dégg naa ko mu jël doom ja tuddee sëñ Fallou daanu jébbalu tuddewaat ko doom tuddee ko doom ba muy ñeenti doom sëñ Fallou woole ko aaliyo ba mu ñëw mu ne ko waaye tuddal keneen nag tuddal keneen manuma ku nekk ma xottil ko mbootu waaye mën naa ku mu tudde doom ma dox sa diggante ak sawar est-ce que noonoo tax damay dem nuyu rek na bu Ndofène Faye yaayu Fallook Saaliw yaayu maman nu ngi koy nuyu bu baax a baax ci ñaari tali di ñaan yàlla yàlla defal ko njaboot gi waaye tam soxna Awa Bousso ca France moom itam sëñ fàlloo ko tuddoon waaye sëñ Fallou bëgg ko lool ñu ngi mhm. koy nuyu soxna Awa Bousso nu ngi koy nuyu waaye itam sëriñ waa kër sëñ daam nu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ca njaareem suñu xel yëpp dafa nekk ci ñoom sëñ bi nu ngi lay ziyaar bu baax a baax képp ku toogoon rek di seetaan ñu ngay rafetlu teewaay bi ci kanamu télévision Futurs Médias di leen wax ne seen émission wareef nii la événement bu dikk incha allah rek daañ ci ànd ak yéen ndax xam nañ ne bu nu waxee société ñépp cay bokk rawatina nag bu ñu waxee màggal gu toll nii tey muy Kazu Rajab ñu ngee ñaan yàlla teewee ko ay at ci at ci at ci at incha allah mu ànd ak yokkute ànd ak jàmm ànd ak teraanga ci biir Sénégal yàlla dëgëral bu baax a baax a baax sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada dama bëggoon a wax sànq ci sama wax ne nitu yàlla yi nu ngi leen di ñaanal yàlla sama xel ma ni cey yàlla nitu yàlla yàllaa koy sàmmal boppam donte nag ñaan du doy nu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax wallaay wallaay macha allah kon bokk Papa Samba Thiam yow itam ñu ngi lay ñaanal rek xel bi ko yàlla bàyyi la ak équipe bi nga yàgg fii du nu gunge ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah mercredi ndax dañuy daal dee dem rek euh, ca ca ca Cambérène euh, sunu xel dafay dem ci maam Ablaye Thiaw Laye nu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar njaboot gi yëpp macha allah rendez-vous mercredi bu sobee yàlla. kenn du moom am na Serigne Cheikh Mbacke am na soxna Diarra am na Cheikh. noonu rek la war a mën a demee lii mooy Sénégal lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci mm-hmm. jërë ngeen jëf mbokk yi.